mënul teg tegu ci lu baax ku amul information yu baax mënul am comportement bu baax waaye ñii muy guddi muy bëccëg muy noor muy nawet muy muy tàng wala muy sedd ñu ngi ñuy jox information yu baax yéen kay gouvernement bi yenay bañ a yenay nëbbu information yu baax yi waaye presse bi moom mu ngi génnee information bu baax bi donc ñii ñaan code de la presse bu ñuy wax noonu ay lu ween yow Macky Sall lan ngay xaar pour rectifier code de la presse mu gën ne ni xam lan moo ci nekk boobu ba léegi nit ñi ñu ngi koy jooy ay stage yi nga xamante ne da ngay stage ba màgget wax dëgg yàlla loolu ci dëkk bu bëgg a jëm kanam te di wax emploi des jeunes retraité dafa nar a am waaye stage tamit dafa war a am diir bu diir bi jotee boo mënta embauché nit ki nga bàyyi ko mu dem wala wa ilaa nga embauché ko donc ñi ñaan patron de presse yi tamit xaalis bu ñu leen di jox nii du pour seen kër xaalis bu ñu leen di jox nii du pour seen poste mais xaalis bu ñu leen di jox nii c'est ngeen mettre ñi nga xamante ne ngeen teg ñi nga xamante ne ñoo